wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24. mbokki taalibe yi wax nañ ko gis nga ba tey ñu ngi ci exposition bi nga xamante ni moom waa Touba ca kanam moom la ñu amal dëkk bu bi ci buñu kër Serigne Abdoulaye Mbacke borom dëkk bi jàkkaarloo kër Cheikh Mouhamed eh, dend ak kër Serigne Mouhamed El waaye tamit eh, gis ngeen ginnaaw kilifa yi nga xamante ni déglu nañ sànq kenn ci ñi yore liggéey bi waaye eh, am na ñoo xam ne ñoo ñëw acteur lañ waaye tamit seen xol dafa jeex tàkk ci Touba ci kanam am nañ ci kenn koo xam te mi ngi fii euh, si ginnaaw ma la nuyoo tur la soxna Asusi soxna Asusi euh, ci barabu sell bi macha allah solin a euh, ci kanam de kuréel la goo xamee seen ni ni kuréelu royukaay la goo xamee seen ni kuréelu Serigne Touba la xol yi fees na xol yi sedd na macha allah liggéey bi sedd na sedd na ah bu ñu sañoon nag murid yëpp jàpp ci ndaxte comme que kuréel gi Touba ca kanam la mbirum Serigne Touba la liggéey ca kanam ca kaw rek ci lu baax. soo ko ñëw visité ko wala yàgg ngay dem seen i liggéey. waaw maa ngi doog a ñëw di ko visité ndaxte sama rakk boo xamee seen ñoo bokk ndey ak bay muy soxna Yacine si di madame Mbacke di soxna Cheikh Mohamed Fadel Mbacke docteur moom laa fi àndal tey jii moo war a indi li nga xamee seen nii ni tey jii moom moo ñu fi indi pour ñu visité ko tey jii. fan fan nga jógee. man maa ngi jóge Kébémer waaw. lan lan ngay dénk taalibe soo demee ci liggéey bi nga xam gis nga di ko def. ah li ma leen gën a xitma ci Touba ca kanam ndaxte liggéeyal ku tedd ki la liggéeyal Serigne Touba la kon na ñëpp jàpp te wax Touba ca kanam jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf kii gis ngeen ko soxna Socé euh, si euh, moom it euh, ginnaaw gis-gisam nekk visiteur ñëw ci liggéey bi am nañ keneen koo xamante ni moom sëñ Bala Diouf mi ngi jóge ca Mboro kee jóge Kébémer gis nga taal bi fex fu nekk ci àdduna wi këpp ngir bañ a wute liggéeyu Serigne Touba Xaadim Rasul nga xamante ni wax dëgg yàlla taal yëpp Euh, dañ ci sóobu euh, songu ko engagé wu ci moom nag euh, ñu am mbégte dalal ko ginnaaw bi nga xam te waa Touba kanam gis nga liggéey bu am solo bi ñu def tey ji lan nga mën wax ban appréciation nga am ci liggéey bi waa Touba ca kanam def ah, li ma ci mën a apprécier bari na lool lool lool lool ndaxte mbir mi moom gis naa ne fi mu nekk nii moom ñun taalibe yi li ñu war moom mooy fas yéene jëriñ Serigne Bamba bañatee jëriñoo Serigne Bamba ndaxte nee nañ murit dafa dof comme murit nag ñëpp suñu mbokk umma islamique bi nee nañ ay dof lañ waaw suñu dara waratu la guddee mbaa mu naaje ñun nañ dof ci lépp rek kiñ ñu dem ba nga xam ne moom ñëpp ñi mbokkal diine yi lislaam ji ñoom jàppe nañ ko dof na rokkosu ci lépp rek waaw ci bu ñu sañoon daal la ca màkkatal mu karam Madinatul Munawwar day ne ci Tuubaa gi ak li ko wër yëpp ba nekkaale biir Sénégal bu ñu xalaat ñun nit ku ñuul ne nit ku weex wala ku xonq mbaa ku mboqum ñu liggéeyal donné donnant sax amatu fi ñoom dañuy jël kay ñoom 90 pour cent jox la di jéem a seet nag léegi diis yi nuñ ci amaate dara ndax ñun ñi nekk ci yenn ruq yi nga xam ne ay internationaux ñoo ñu dirigé ñun xam nañ ci dara ndax boo demee mbooro di dégg tur yi mais boo ñëwee ba xool man cosaanoo moo fa mais toog naa ba xam ne ne mbooro moom vraiment laaj na soutenir loolu mel noonu nag lu mel nii yal na lawe ni mu lawe Touba di digg Sénégal ba daj cap Sénégal Afrique doxe fi di ñu roy ba pare nag léegi Afrique moom boppam. luy jot daal dafa jot ginnaaw dee waaw te Bamba dagg na buum gi ñun nag li ci des mooy mooy tekki buum gi ba mu set ci wecc wecc wecc wecc di jëriñ Bamba bañ di ko jëriñoo waaw jërëjëf jërëjëf ngeen gis ko noonu mbokk taalibe bi moo doon wax sànq sëñ Balla Diouf leer ku ko gis xam ne dafa leer la doon waxee àll la doon waxee xër euh, ci Serigne Touba xaalis bu jeex ci tàkk mbokk yi muy message boo xam ni nii c'est important à percevoir mooy que euh, que tout le monde s'engage également pour accompagner euh, ce projet entamé par donc cette cette organisation Touba ca kanam bi nga xamante tey jii taxaw na ji taxawaayu nag Touba daanaka daj fépp am xar kanam soppeeku mu nekk royukaay ci ni mu ko waxee sànq ci biir Sénégal ci àdduna wërngal këpp ndax daal ca kanam jeexal nay wax ca kanam te Serigne Touba amul tànki ginnaaw léppam kanam la jëm te sëñ Tuubaa wàcc na de ñun ñoo ci des est-ce que gis nga ko noonu eh, bëri nga rek da ngay laal mu a laal mu dem laal ci di sab sab ndax sëñ Tuubaa Xaadimu liggéeyal na réew mi liggéeyal na lislaam liggéeyal na àdduna bi kon nit ñëpp nañ jàpp tamit jëm a góorlu ndax liggéey boobee kat dañ cee war a eh, feeñ ndax sëñ Tuubaa kat buñ toogee du tere suñu borom jox jox na ko ba noppi kon dañ cee dem ngir nag sunub sàkk kon liggéeyalu sëñ Tuubaa waaye dañuy liggéey ñun ngir sëriñ moomee eh, la nga xam te suñu borom jagleel nañu kat dara ba